asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi amaan nañ mbégte toogaat ak yéen ci jataay bii nga xam ne jataayub lislaam la waaye jataayub woote la woote bi jëm ci liggéeyal sëriñ Tuubaa xaadim rasul ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy jëwriñu yoon wi di ñaan sun borom mu yàggal ko fi lool te ànd ko wér sëriñ cheikh Mbàkke moom sëriñ Saalihu dellusiwaat na di santaat bokki jullit yëpp di santaat bokki taalibe yëpp rawatina ñi nga xamante ne bii wuji woon nañ ca liggéeyub koom ba ak ñi nga xam ne ñoo wuji woon ca liggéeyub tubaa Darou Salaam nee na mi ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala ka taxoon ñu jóg muy Serigne tubaa yal na yàlla faj seen i aajo yi àdduna ak seen aajo yi àllaaxira ci barkeb sëriñ Touba Cheikh Salihu mu ñëwaat nag fabaat kàddoom joxaat ko rakkam di sëriñ Salihu Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne ne ñëpp xam nañ ne. taxawaay bii rek musta jóg ci di ko taxaw ci jamonoy sëriñ Saliou ba ci jamono ji nga xamante ni moom lañ toog tey jii ñu fas yéene woote nag liggéey bi nga xam ne daanañ ko baaxoo woote saa yu jamono ak fii mu di ngóobum saañoo ma nekk ca daaray lagan loolu moo tax ñu toog ci jataay bii fas ko yeneen ànd ak sëriñ Saliou Mbacké mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ bi yëkkati ay kàddoom su noppee danañ jox kàddu gi sëriñ Youssou jenn mi nga xam ne kenn nattabli wu ne liggéeyub lagan ba la ci ëpp njabootu sëriñ Issa jenn gi ñoo ko daan taxawee su noppee danañ jox sëriñ Xalil Lo mi xam ne mooy jëwriñu daara ja mu leeral ñu fa liggéey ba toll ak nañ ko fas yéene liggéeyee su noppee danañ jox kàddu gi sëriñ Moustapha Jaxate moom sëriñ Modou Xëy mi nga xam ne mooy wax ci turu mbooleem jëwriñ yi nga xam ne tudd nañ leen fii waaye ñoo xam ne nag sëriñ bi nee na liggéey bii naka jekk daara ja dafa amoon jëwriñ mu di alaaji Samuel Sarr moom sëriñ saalihu sëriñ bi nee na mi ngi feddliwaat ndigal loolu ci moom di ko soññuwaat ci liggéey bi di ko fas yenee ànd ak bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi kon dañuy bàyyi ak sëriñ saalihu Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad mu yëkkati kàddoom ci turu sëriñ bi su noppee danañ woo jëwriñ yëpp di di nuyu ci turu sëriñ Cheikh moom sëriñ leen jottali euh, euh, nuyoo bu sell bu jógee ci moom jëm ci taalibe yëpp di jottali waaye it mbokki jullit yi ak mbokki yi liggéey bi mu daa baaxoo defal sëriñ bi ci tool yi lagan ya moo xam ne liggéey ba daa euh, agsiwaat fa mu doon agsi mooy liggéey yu ngóobum euh, tool yi lagan muy ngóobum muy ngóobum bësi euh, muy ngóobum saañoon ngóob moomee nag agsi na fa mu doon ak tam mel na nam daa mel moo tax mu ne woon nañ ko yëgalaat mboolem taalibe yi yëpp ñu ñëw jàpp ci nañ ca daa jàppe am na ci nag jëwriñ yoo xam ne ñoom lu ci bari seen loxo la ko tegoon ñooñu ñëpp sëñ Fallou Galass mi dana tudd seen tur ba ñëpp euh, dégg ko dana yeesalaat seen tur bañ xam ne ñoom la fa woo ñoom la bëgg ñu teew si fa mi ngi ñaan euh, barkeb sëriñ bi euh, képp ku fa teew wala nga amoon yéene teew fa bépp aajo boo fa andi woon yàlla na ko sëñ Tuubaa fajal jaay seexal xat jaay seexal xadim li mbaaxoo wax rek mooy bañ tàmbalee liggéeyub ngóobum saañu ma ca ca ca lagan ba léegi ak lu ko jiitu Samuel daa jëloon daaray def ko muy daara daaraam mu féete woo ko li muy jàppati jàpp ne da ko war a liggéey sëriñ bi di ko liggéeyal sëriñ Saliou da ko doon da féete woon lagan di ko fa jaarale ca eh, xeet yu baree baree bare ba ci ngóob mi ni ñëwee ngóob mi mu noonu ne ma ko daa doxee noonu la ko doxale yeesalaat eh, jëwriñ nga ak kii mosu caa waaye nam ci daa eh, naka jekk noonu la koy taxawoo sëñ bi nee na loola ba tey ba ko bàyyi ci loxoom ca ca ca ak doxalin ak la ko jiitu ak nam téye daara ja te ngir yàlla jëmmi sëñ Saaliw rek eh, tax mu def ko mi ngi ñaan lépp lu mu ci liggéeyal eh, sëriñ bi sëriñ bi fay ko ci la kawe njortam incha allah di jëmale ab siyaar ci sunu kilifa gi toog muy sëriñ Saalihu moom Cheikh Abdoul Ahad di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko lool kàddu gi kàddu gi nag ku gis sunu boote di nga xam ne fi mu jëm mooy li ñu baaxoo woote waxtu wi mooy ngóobum saañoom daare lagan ñu wax ne waxtu woo daa ak siwaat ñu jàpp ko le 7 décembre bi nu jëm incha allahu taala kon nag ñu ngi yëkkati kàddu ci kilifteefu Cheikh Abdou Latif jenn mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Issa Diène ak sii di Naar jenn mi nga xam ne mooy xalifa sunu waajur Serigne Naar jenn di woo mboolem tundu njenne lagan ak li ko wër bàyyiwunu kenn ndax ñoom kan ñoo dëkkee ak tool ba sëñ bi itam moo moo tànnoon dëkkaale ak Cheikh Issa foofa kon lépp lu ñu fay woote ñoom ñoo ci war a jiitu di woo waa Xay Mbayaar di woo waa Darul Mannaan di woo waa di woowaa Cele ak Curongeen daaray Siidi daaru Rahman ak daaru Salaam waa barka ak Lansaar Baxdaad ak Mbar Touba Njenne bu dee fi ci Touba tam ñu ngi woo waa Touba Lansaar ci njiital Serigne Cheikh Diop di woo itam waa Ndand ci njiital Serigne Dame Faye di woo waa Njabel ci njiital Serigne Cheikh Dieye ak Serigne Cheikh Ndak di wax ni nag liggéey bi ñu ngi ciy soññi mboolem taalibe yi. di ci woo te yow di wax ne Cheikh Issa dafa am lu ko Serigne Touba waxoon bis ni ko sab taalibe bala nga koo mën a jariñ da nga liggéey loo kon nag liggéey bi dafa toll foo xam ne mboolem taalibe ya nga xam ne ñoo fa féete muy njaboot gi fa Serigne bi defar ak di leen ñu liggéey ko ba liggéey bi àgg fi mën nañ koo yeggale waaye Serigne bi nag liggéey bi daa laaj mbooloo mu yéenañ jariñ li ña fa gën a jige te njabootu Cheikh Issa fa gën a jige moo tax euh, Cheikh Abdou Latif ginnaaw bi ñu demee yëgal ko ko jox nañu digal ñu soññi mboolem taalibe yëpp Serigne si itam noonu la ñuy joxe ndigal tam ñu soññ mboolem taalibe bi yëpp ñu ñëw teew si ca liggéey ba kon nag ñu ngi ci woo ñëpp bàyyiwunu kenn di beral ak cant bu baax tam suñu mbokkum taalibe Samuel Sarr mi nga xam ne taxawaay bi mu taxaw ci liggéey bi ñun ñëpp gis nañ ko kon ñu ngi jot li santuk sëriñ bi ci moom ndax képp ku liggéeyal sëriñ bi ñun taalibe yi ñoo la war a sant kon ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwunu kenn di leen xaar gaaw ak jàmm insha allahu taala di ñaan ñu daje ci ëngërëmu sëriñ Touba. ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp ak fu ñu mën a nekk. di leen siyaare itam sunu kàddu nag ginnaaw kàddu kilifa yi leeral rek lay doon ndax kilifa yi wax nañ li ci mat a wax lépp li ci mat a leeral mooy woote bi ngóobum saaño la ci daaree lagan loolu ñu ngi ko jàpp gaawu di juróom-ñaari fan ci weeru tubaab yi ñu jëm incha allahu taala sëriñ bi mu ngi ci woo mbokku taalibe yëpp di ci woo mbokki dëkkandoo yëpp di ci woo itam mbokki jullit yi lépp ndax liggéey bi yàlla la liggéeyub sëriñ Tuubaa la liggéeyub sëriñ Saalihu la te moom li pas-pasam di yéeneem di yëg-yëgam mooy yëfi Sëñ Tuubaa yone mu yaatal ko ba ku ne man caa jariñu kon loxo boobu waajuram mu tedd waa daa tàllal dëkkandoo yi di ko tàllal mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi mi ngi leen di tàllalaat loxo boobu muy ànd ak liggéey Sëñ Tuubaa te yàlla nañ ci am njariñam sëñ baa ngi ci woo ñëpp ñi ñi ñi nga xam ne yàlla mën noonu leen ko dañ mën a teew ci liggéey ba waaye mi ngi gën a jagleel ak woo nag ñi nga xam ne ñoo gën a féeti woo toolub lagan ndax lu gën a jege lu ne yow yaa gën a yay kon mboolem li gën a jege tool ba sëñ baa ngi jiital woote bi ak fàttali gi ci ñoom ñooñu rawatina muy eh, tund Gosaas ak li ko wër rawatina nag commune bu Mbul ak mboolem dëkk yee ci aju ak commune bu Njenn Lagan ak mbooleem dëkk yee ci jege sëriñ bi mu ngi woo ñooña su regatee liggéey bi liggéeyub ngóob lay doon ak lippi loole itam kuy ñëw nga indaale ay jumtukaay yoo xam ne dana la mën a euh, baddali ca wet googa su ko defee incha allahu taala ku ci ñëw foo mën a jóge nag jaar ci tali bi moo gën a jàppandi benn nga jaare Gossas wala nga jaare Mbar boo ñëwee ba Malka am na ranra bu fa sëriñ ba def ngir jàpp ndal jullit yi ak taalibe yi bu ñuy ñëw ci lu mel noone ranra bu mu agsi ba ci daara lu oto euh, oto lu mage mage mën naa jaar foofu ba yegsi soññ ci ñaari anam muy bépp gépp jëwriñ goo xamante ni yàlla dogal na nga aju ci kër sëriñ Cheikh moom sëriñ Saalihu boo déggee ñu te ñu tudd saw tur ci ni ko sëriñ Fallou Galas war a tudde nga xam ne woote ba yaa ci jiitu ku ca déggul saw tur it nga xam ne ni nga xamante noonu la ak julli mate nga xam ne bu ñëpp maase woon mokkal faatihatul kitaabit jenn imaam mooy jiitu tari faatiha ñëpp aju ca kon nañ xam ne woote bi woote lislaam la woote bi liggéey sëriñ Tuubaa la sëriñ bi mu ngi woo ñëpp bàyyiwut kenn képp kuy doomu aadama te bëgg jariñ jariñu képp ku dib jullit te bëgg jariñu képp ku dib taalibe te bëgg njariñul tey ak ëllëg ñu ngi leen di waaye rawatina nag jëwriñ yi nga xam ñu aju kër sëriñ Cheikh moom sëriñ Saalihu ak fu fi jëwriñ mën a nekk ak lu mu sori ak lu mu jege ak fu mu fa mën a nekk rek ñu ngi lay woo ci liggéey bii di woote nag ci kilifteefu sëriñ Mouhamadul mun moom sëriñ Amsatou mi xalifa sëriñ Amsatou ak mbooleem ko askanoo ci sëriñ Amsatou ak mbooleem ko askanoo ci Mamoudou Asta ak mbooleem ko askanoo ci askanoo Njaxate di la woo ci liggéey bi nga xamante nii moom lañuy liggéey muy ngóobum saaño mu nekk ca Touba Lagan ñi wax ne euh, nii ko sëriñ Xalil waxe am na luñ ca namm muy wàllu lipp ba ñi dëkkee Saloum ak ñi dëkkee anam yu mën a doon fépp foo xamante ni xànc am na fa ñu ngi ñaan ñu wut ay xànc indaale ko képp koo xamante nii yaa ngi ci taax yi nga xam ne na faa jënd ay buum muy buum yi ñu lippee ni ñu ko doon defee Touba Darou Salaam ndax dañoo seetlu ne jaag yi dafay bari ay yàqu-yàqu yu ca daan am ci camion yi yéegal bi ak arrière bi ci kaw dugub yeeg la fay tasaaroo ci jaag ba ëtt ba day yaatu lool suñ ko takkee ay takk nag def ko ay jaag dana sellal liggéey bi dana gën a sakkanal dugub ji dana sellal lit ña nga xamante ni bu ñu ko defee noonu ñoom lañu fay bàyyi ëllëg ñëwal bëti ko war a indi ay tracteur war koo bojju loolu yëpp dana ko sellal kon nag te liggéey bi sell rek lañ ci bëgg ndax ba si lu mu gën a sell rek suñ digganteeg sëriñ sëriñ bi dimbali lañ ci ci suñ digganteeg moom kon ñoo ngi ñaan képp kuy ñëw te man ko na nga ko def képp kuy mën kuy ñëw te mënoo ko na ko jéem seriñ bi nag woote bi da ci daan jiital naka jekk eh, doomi seriñam jii di sëriñ saalihu moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaye nag di ci teg ki nga xam ne mooy jëwriñu liggéey ba di alaaji Samiyal saar moom Serigne Saliou Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Mountakha nekk ca Touba Mboul ak ña ko la ko wër gépp Serigne Abdou Latif Jenn ak mbooleem njabootuk Serigne Issa Jenn gi waaye Serigne Sidi Naar Jenn ak mbooleem njabootuk Serigne Naar jaar ci kàddu nag Serigne Youssoufa Jenn moom Serigne Naar ak mbooleem koo xam ne aju na ci eh, Serigne Naar Jenn raw rawatina mu aju ci Serigne Issa Jenn Serigne Sidi Mbacke ak mbooleem njabootuk Serigne Mut Jee njabootuk Serigne Aliou Seck Serigne Modou Seck nekk ci kër Njang alaaji Moustapha Seck nekk ak Seydina Alioune Seck ak Serigne Cheikh Bamba Seck ak Serigne Babacar sek ak mbooleem njabootu euh, Serigne Alioune Seck wanaar moom Serigne Touba sëriñ Amath Seck nekk ci Koupantoum sëriñ Moustapha Diakhaté moom sëriñ Modou Khayri sëriñ Fallou euh, Tine nekk ca Sanc Daaru Salaam sëriñ Fallou Kane nekk ca Tewru sëriñ Khadim Tine Mbacke Bawal sëriñ Souley Gueye nekk ca Sajaratu sëriñ Moustapha Gueye nekk ca Daaru Taneeful sëriñ Mourtala Ndoy nekk ca Ndoyen sëriñ Cheikh Sarr nekk Ndoka Sarr sëriñ Khadim Sarr Ndoka Sarr sëriñ Abdou Diong Gossas ak mboolem li wër gusaas gépp sëriñ Thierno Dione Ngoya ak mboolem li wër Ngoya sëriñ Cheikh Sène Ndoka Sidi sëriñ Bàcc Bousso Param sëriñ fallu saar euh, Gorjël sëriñ Ousmane Loum Gorjël sëriñ fallu Mbacke moom sëriñ Mbacke Madina nekk ca Malka sëriñ Bàcci jóob nekk ca Malka. sëriñ Abdou Kontey nekk ca Lagan sëriñ Mbay Diop ak mboolem mbuur ak li ko wër sëriñ Ousseynou Kane borom xalima gi jàmbaar yi Lagan sëriñ lemin Diallo Dakar sëriñ Assirou Wade Kaolack. sëriñ alhaaji wilaan nekk ca ngatu malik sëriñ ibrahima ngoom nekk bu xoxatul mubaarak sëriñ alhaaji saaliwu seen nekk ca bambay séeréer sëriñ bi nag nee na mi ngi ci soññi mbooleem ñi nga xam ne ñoo daan jàpp ci liggéey bi ci wàllu oto yi di ci jiital alaaji mbay Touré di ko ñaanal sun borom mu dolli ak wéram ca dolli taw fee xam eh, sëriñ Abdoulahat Ndiaye nekk Dakar sëriñ Xabbaan Aan campement Ngaxoox sëriñ Ibrahima Wadd nekk Jamñaajo sëriñ Moustapha Ndiaye nekk Bambay sëriñ Cheikh Gueye Mbana ak mbooleem koo xam ne rek yor nga oto te mën a jàpp ci liggéey bi sëriñ baa ngi lay soññ képp koo xam ne nag bëgg nga ab leeral ci liggéey bi wala nga yor loo xam ne jëm si na ci liggéey bi rawatina lu jëm ci wàllu buum yi ak la ci aju mën ngaa jox ko ak numéro téléphone yi ñu ciy bëgg a tudd di 77 640 24 82 77 640 24 82 wala 76 340 56 90 3 76 340 56 90 sëriñ baa ngi ñaanal ñëpp di ci séntu ñëpp di ñaan képp ku fa teew yàlla la faj sa aajo ci barke cheikhul xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu